mbokk yi e, ñu ngi leen di nuyu di leen wax bismillah ci bi nga ne tey ki ko woote mooy def mu nekk collectif des imams et ulama bu SICAP ak liberté di kuréel nga ne moo imam yi nga xam ne ak borom xam-xam yi nekk ci SICAP imam yooyu bu ko lim juma yooyu mën na toll ci fukki jumaa ak jàkk ci ak juróom-ñaar Je eh, bu nga xamé né arrêt ministériel bobu na jëm ci le di coronavirus ñu xamé ko ci Covid 19 té jitu président de la république al Macky Sall bobu jëm ci lu yaatal ak bi ci réew mi ñu jël matuwaay yooyu ñu jël te bokk na ci yi jël fépp fuy dajale nit ci réew mi ak ci barab yi ñuy dajee yépp ba ci jullikaay yi jumaa yi jàkka yi moo waral tey suñu dajee fii tey waaye nag mu nekk lu rëy bu ñu déggee ci suñu nopp ne dañuy tëj jàkka yi dañuy tëj jumaa yi ñu fàttali ne yàlla kat li ko gën a ñor mooy nit yàlla li ko gën a ñor mooy wér-gu-yaramu nit balaa ngay mën a jaamu yàlla yaa fekk na yaa ngi mën a wér balaa ngeen dem jàkk yaa ngi mën a wér balaa ngay liggéey yaa ngi wér loolu moo tax yàlla li ko gën a ñor mooy doom aadama mooy nit moo tax mu ne bu leen rey seen bopp ndax man yàlla dama am ci yéen yërmande moo xam ne bu leen jël seen loxo mukk di ko dugal ci lu leen di alak kon bokk na ci liy dugal suñu loxo li di ñuy alak gis ne jàngoro ji ñu doon dégg ca biti ca Chine ak fi nekk ay junne junne kilomètre ñu koy dégg rek tey dem nañ ba jàkkaarloo moom ni mu ngi nii ay doomu sénégalais am ci jàngoro nekk ci suñu biir léegi li ci des nag mooy guerre ak moom xeex ak moom ba du mën a yaatu xeex boobu bokk na ci lépp lu nga xam ne ñi jëm ci wàlluk santé li ñuy digal diko ci wax li ci jitu ci xex bi yoyu ci la bok way rawati nak ñun doom adamay sun cay cay yi ñi nekké bari na moy yàlla yi bari na te yàlla saa yu wacce musiba wala bala rek fekk dafa nek da fay araftu doom adama muy sanction buy tek ci kawam kon suñu taxaway en tant que julit moy nañ tuub delu ci yàlla yàlla mi ñu wo jëm ci mom ne wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al thumma la tunsarun yalla mu ne na ngeen ñew ci man ci man mi la jamm nek man mi febar amul fi ma nek man ci la xewal nek man yalla na ngeen tuub del si ci man balaa len mbugal mu nga xamne bu ñewé mu melni coronavirus ak jangoro yu melni nga xamne duñ ci man dara suñuy professeur ak suñuy soignant ki suñuy ay médecin dañuy taxaw jaxlé waye su boobaa yalla neena ngeen tuub ñew ci man kon di ci njëkk bayyi xel moy nañu tuub jëm ci yalla te yit fexe ba li nga xam ne moom la kilifa yi wax ci wàllu tëj jàkk yooyu muy lu rëy ci suñ nopp te yonent bi nee na na ngeen bàyyi xel ne yéen sama xeet fu ngeen jullee rek même bu dee ci seen néeg sax yàlla may na ma foofu ngeen jullee jàkk la ci yéen kon bu ngant amee mënoo ñëw jàkk nga nekk ci sa néeg julli yaa ngi mel ni ku jóge jullee ca jàkk ji hmm. waaye soo ko deful nga dëgër bopp dem ca jàkk ji ba nga fa wàll fa nit wala ñu wàll fa bàkkaar bu fa nekk yaa ko yenu sa bopp kon su ko defee dañuy tënk ci waxu kilifa yi nga xam ne moom la ñu wax jàkk yii ñu tëjaale ko ab ndéganiku ba li ñuy xeex ñun ñii ñëpp ñu mën ci am ndam ñu mën koy daaneel ñun ñëpp yàlla ñu yàlla defal loolu waaye ba tey tamit e ci biir li nga xam ne mooy wàllu xeex boobu e ñu ngi ñaan ci ñi yor baat di nguur gi dogale ñuy jël nga xam ne ànd nañ ci fii ci Dakar région Dakar bi ñu ngi koy ñaan mu yaatal ko ba fépp région yëpp ba nga xam ne du nekk Dakar kese ndax li ñu bañal Dakar moom la ñu bañal beneen région nit mën na jógee ko fii ci région de Dakar dem beneen région jëlee fa feebar ba indi ko fii mu wàll waa Dakar te dara du ko jar te kat yàlla dimbal nañu ba suñu nite diine yëpp jël nañ kàddu jox ko président de la république ne ko yow la ñuy déglu loo wax loolu la ñuy def kon président ak ñi nga xam ne ñoo yor loolu di nguur gi ñu ngi leen di ñaan ñoom tamit ñu yaatal xeex boobu ba fépp matuwaay yi nga xam ne moom lañ jël fii ci Dakar ñu jël ko fépp ba nga xamee ne xeex bi danañ ko mën a am ci ndam ci daaneel ko waaye ci mujj gi it ñu woo askan bi yëpp ñu respecté li nga xam ne mooy ndénkaane ñi yor wàllu santé mooy bi ci njëkk mooy ak cet fexe ba saabu ñëpp mën nañ ko am waaye gel bii ngay gis ku ko mënta am sa kër it mën nañ am ndox ak saabu di raxasu ba set wicc moytu joxante loxo yi moytu jokkalante yi ndax loolu sax lu joxante loxo nekk luy nuyoo lislaam lislaam daal nuyoo mooy assalaamu aleykum wa aleykum salaam boo ci boolee maslaam olof naam naam wàdd naam jóob naam sekk ba tey mu gën a baax waaye jox loxo bi bokkul ci kon su ko defee lii nga xam ne moom lañ fi wax léegi moo doon kàddu yi nga xam ne mom la collectif des imams ulama bu Sicap et Liberté les tay fi fi dajé les fatali les di moytu nu les nek surtout ci réseaux sociaux yi liñ fi gis les fi dégg ak ñi nga xam ñoy charlatan yi man na faj li li boko ko wër li boko xolé wër li boko nangam bi alayhi wasallam wax nañu yi nan lañ koy ci ay prévention yu nga bu ko dem bul so soril waaye tamit ci wàllu ay ñaan yu nga xam ne ñu koy ñaan mu nekk ñaanu sunna yu wér péng loolu dañ ci yem te bàyyi ku ko naan wér ku ko xool wér ku ko ku ko nangam ak nangam yooyu yëpp ay caaxaan la amul benn ci diina amul benn cëslaay kon loolu lañ doon bëgg a wax foofu di ñaan yàlla yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm yàlla na yàlla def ci Sénégal jàmm yàlla na yàlla dàq jàngoro ji bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hada wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin